appel bi ñu lancé ku nekk dellu sa gox mën a fexe ba tey jii nii lépp li nga xam ni liggéey la ci centre de vote bi ñu commencé ko foofu fexe ba centre de vote bi ñu am fa maîtrise mën fa monter ay organisation suivant schéma bi nga xam ne daan leen ko présenter cet après-midi avec Yankhoba Diattara ñu am une organisation suivant schéma boobu après loolu law jëm kanam parce que tey boo bëggee jàppale nit pour mu falu xam-xam bi am na solo taxawaay bi am na solo mais li ëpp solo mooy nit ñi parce que président Macky Sall bu ñu ko falee tey du moo fi ëpp xam-xam du moo fi ëpp parcours mais bi ñu wàññee 2012 moom la yàlla def ci deuxième tour mu ëpp ay nit donc nit mooy fal nit et par conséquent il faut ñu organiser parti bi autour des centres de vote jëm ci kaw gën ko lawal pour que ñu mën a am dam parti bi activité bu fi am je moo valider d'abord avant nit diko def valider li nga le frère def Nako, waral ñu fi ñun ci ni muy dafa ki nga responsabiliser day responsabiliser et dafa am ouverture ba nga yenn day déléguer pour que nit dem defal parce que kilifa bu mag la et ça franchement c'est le lieu de le remercier et de le féliciter ci monde motax bimu démé ba mënu ñëw nek ci yenen mu ni ma naa dem présider si lii mais li ma leen mën xamal moy doon nak nga xam li fi xew à la seconde ñu ngi koy xam doon nak nga xam ne avant ñuy def moy valider doon nak nga xam ni militants yi ak responsable yi ku nek ci ñom xam na cofeel bi que président Idrissa Seck ëmbal c'est pas taxaw tay wala bañ taxaw tay moy sànni moy wàññi dara ci cofeel bi tollul ak ñom fuy taxawayam ak ñak taxawayam di findel cofeel wala bu mu am parce que compagnonnage bu duré 16 ans ku nekk wan ci sa morom je pense que plus yi nga détail la ci niveau responsable motax ñewul mais mi ngi fi ñi ko bëgg ñëpp ñoo ngi fi te bi ni mu war aussi ci ndigalam lañ koy défé ak ko calendrier électoral bi ni muy Sénégal ak ni muy des fois pour nga continuer ko ba day metti parce que da ngay dem ba sore élection ñëw te bu élection ñëwee mobiliser nit ñi ci yi déjà ñu mën régler problème d'encadrement électoral bi le personnel centre de vote bureau de vote nous nit ñi pour couvrir donc activité électorale le dessus ci activité de structuration donc calendrier électoral bi muy changer motax des fois lolu di don problème D'ailleurs, point bobu ci dialogue politique bi la bokk la rationalisation du calendrier électoral parce que les mi nga ne at boo at parce que ku au lieu de respecter calendrier électoral bi da ngay def aménagement changé te heure que changé jouer des animation active ou parti politique et c'est ça qui amène ces difficultés là on n'a pas cette stabilité et cette maîtrise du calendrier électoral Moi, je inscrit inscrire ko ci euh, dialogue politique mais fii 2024 il y a une élection locale, comme ce n'est pas encore fixé, on a le temps pour cette fois de pouvoir réussir cette circulations.